jërë ngeen jëf ñi mas dégg monsieur ministre ci nguuru Macky Sall ñu bari ci ñoom l'observateur nee nañu seen yoonu kasa taxaw na li tax mooy coowal reddition des comptes yi l'observateur mi ko bind teg na ci di wax ne bari na ci ancien ministre yu Macky yi ñu bëgg falu doonub député ngir tey bu ñu demoon ba war leen topp ci yoon mbiri du yombe noone ndax seen immunité parlementaire élection législative yi ñu jëm la république di APR nee nañu mooy kii maître Malick ni ñu doxale ak moom ci investiture yi moo tax mu démissionné ci APR ba noppi nag fas yéene boycotté élection yi du ca def du ca dindi point actu di ñu wax ne bari na ñoo xam ne ay responsable la woon wékkee woon ci Macky Sall tey jii ñu bari ci ñoom tëgg nañu seen i liste fas yéene jàmmarloo ak moom Macky Sall muy Abdou Karim Sall di Moustapha Diop di Maguette Sène ba ci Cheikh Issa Sall ku ci nekk ci ñoom liste ba nga tëgg yaa ko jiite conseil législatif yi ñoom waa ànd liggéey sunu réew yéenekaay bi mi ngi ñuy xamalit ne seeni pexe bu sottee bëgg nañoo invalider liste nationale bu coalition sàmm sa kàddu la si nañu li daloon waa yeewi askan wi ak seen liste yi weesu mooy yoot waa sàmm sa kàddu ndax ay recours teg ci taabal conseil constitutionnel di ca dingat bokk Barthélémy Dias ci yooyu la te ñi ko def li ñu bëgg buñ ko amee li muy furndeel mooy sàmm sa kàddu gi journal gis na ne seenu bokk ci législatives yi mi ngi bëgg a tax suuf ndax Barthélémy mi ñu recours Ousmane Sonko mi waa takk wàllu Sénégal recouroon moom it le Témoin ne nañu déposé na ab mémoire de défense ngir li bëgg mu di ñu tere ko bokk ci wete yi loolee bañ a ko nañu fukki avocat la Ousmane jël ngir ñu géreel ko yëf yi démb la ñu seenu mémoire de défense annulé gi ñuy dégg ci candidature bu Barthélémy Dias di ko dégg ci candidature mooy alliance yi ñu gis ñu tëgg leen ci législatif yi ñi leen tëgg ba teg leen ci lan lañu ko teg ne bari ay leader politique yu joxante loxo ngir législatif yi seeni suwaa kenn comprendre ko ndax trahison la wala transhumance la wala stratégie politique la noonu démb yu doon ay gaañ bu ñu tollee ci campagne lu ñuy wax waa koñ bi yii yëpp laaj la yu public yéen xëy di laaj ci xët njëkk ci xët njëkk sur soit président de borom réew mi quotidien di ñu xamal ne moom njiitu réew di président Diomaye Faye yamul foofu ndax plan Sénégal émergent di PSE gi ñoom Macky Sall doon doxe Diomaye Faye gas na bu mu xóot mu ne ko ca yenkam sul ko indi beneen référentiel politique publique euh, trésor public ak njuut njaay ñu fa dox jëme ci ay seeg yu ñu falsifié libération bi ngi ñu wax ne que tëgg mafia ba maanaam cerveau ba gaañi daaneel nañu ko ubbil yéenekaay bi waa ji doon falsifié segi ab agent trésor la bu tudd Mansour kan ay faux cachet la yoroon da daan bàyyi ba nit ñi wàcc mu dem sàcc ay chèque tamponné leen toppandoo signature bu paye général bi encaissé seg ya damm ci poosam journal bi nañu ba ñu ko daanelee moom Mansour Kane daanuwul moom rek ndax daane laa leen beneen transitaire bu ñu naan Mali Seck ndax moom Mali Seck nee nañu dafa jot segub 400 millions bu ñu jaarale ci benn intermédiaire bu jigéen jigéen ji ci l'observateur def na lu ëpp ubbil yéenekaay bi ab aaw la bu jël doomi wu jëm sànni ko ci teen journal bi nañu ca yëmbal fa la musiba ma xewe lise ko nañu moom aaw bi bi mu jëlee doomi ñaareel ji sànni ko ci teen bi xam ne li mu def ëpp na dafa daw dem Kébémer làqatu ji fa doomi ñaareel bi mu tàbbal ci teen bi lise ko mi ngi ñuy wax ne liir bu jigéen la bu tolloon ci fukki weer ak ñeent li ci gën a yéeme nag mooy moom aaw bi lañ ko tudde woon